si muñ ko mën a rappeler daan na génn di ànd ak cheikh bi cheikh Béthio euh, yàlla suñu borom fayal boppam daan na génn di ànd ak moom di di di di di di bi di ànd ak moom fu ne mu koy woy Serigne di fa jaare tamit di xam tamit Serigne Saliou di bëgg Serigne Saliou ndax moom ñu ngi koy faral mën a yeewu donc kooku tey moo fas yéene def léegi sur l' international bu doon une première sortie sortie boo xamante ne daf si dem avec sa propre structure bi nga xamante ne tamit gis neen actuellement les euh, prouesses qui sont qui sont en train de faire si loolu la ñëw jox la nga date bi euh, Mouhamadou muy première sortie boo si firee tamit mën nga dugg tamit si titre sama waa ji nga xamante ne daanaka mu ngi résumé lépp loo xamante ne mooy si diggante ak Serigne Saliou mooy si yoonu tarbiye gi mooy si histoire noo nga tarbiye yi et cetera donc Mouhamadou ñu jox la kàddu salaamaaleykum jërëjëfati sëriñ Saalimu maa ngi nuyoo nuyoo bu sell ci xalifab sëriñ Tuubaa bi ñu Cheikh Mouhamadou Mountakha Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd wér waaye maa ngi siyaare sama wasila sama bunt ci sëriñ Saliou sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké maa ngi koy siyaar te ko nuyu te nuyu mboole seen njabootu sëriñ Saliou gi maa ngi nuyu àdduna bépp fépp fu doomu aadama nekk ci àddina bi rek maa ngi lay nuyu bu baax jàmm mbégte nag ci journaliste yi fi teew ma di masawu ndax mel ni xaw ngeen fi yàgg te toogaay bi na man ak yéen ñoo liggéey bi c'est la famille kenn mënul dem bàyyi sa morom ngi leen di sant bu baax ci teewaay bi di am lool di nuyu kilifa yi nga xam ni ñoo teew ci jotaay bi su ma limee damay juum waaye maa ngi nuyu sama staff di gërëm ménageur président liggéey bi rafet macha allah ba ñëw nag ci li nga xam ni moo tax ñu daje muy événement 31 décembre fële ca Maroc Casablanca te suñuy ay mbokk taalibe woote ko may profité di nuyu jëwrin Mbacke Seck mi nga xam ni moom moo ko xalaat di borom di jàmbar yàlla togal ko nag mu am te jaar ci sama jëmm ci loolu nag moo ñu may tey ñu mën a taxaw ba wax sénégalais yi fan lañu jëm ndax liggéey bi moo dox ba yóbbul boppam foofu fi mu yegg si lii di wax na ko léegi Mohamed ñaar yàgg naa génn ànd na ak Cheikh Béthio dem France dem États-Unis defe naa keroog bi ngeen déggee Cheikh Béthio dugg Nations Unies man mii la andalon keroog may woykat buy woy mbirub yàlla bu fa njëkk bu fa njëkk a taxaw Nations Unies tudd fa baatub Serigne Saliou ñi di ko traduire en anglais partout dans le monde loolu jaar fa ak jëmm ju tedd jooji ñu ñaanal suñu borom yokk ay ngërëm ak i yoon Mohamed Niang la ak groupe c'est la première fois mi ngi soog am man moom